ca pëndum teen ba day gaaña amul baaga tribune yéene kaay na ma coow la ca Benno Bokk Yaakaar candidature la diggante Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo ak Aly Ngouille Ndiaye rëq sa ndig la tribune nan man Aly Ngouille Ndiaye moom teel na xamal boppam président Macky Sall naan kon Sall moom bu ye boo xool ma ci gët te ne man mii man Aly Ngouille Ndiaye pareew ma sax ngir sama candidature bi le thème mooy yéene kaay naan man Aly Ngouille Ndiaye kay daal dinay dëkk président Macky Sall naan kon dara munu maa teree doon candidat ci mim réew tribune naan Aly ma nga naan candidat bi nga xam ne moom la ñu war a tabb dafa war a doon koo xam ni ku politique la dëgg la président Macky Sall tabam gii dana métti ci moom wala waaye aali naan kon lu mu métti métti na Sall sóoraale na man aali nguy njaay candidat laa wax naa ko ko jëmmal naa ko ko junj naa ko ko man aali nguy njaay candidat laa 2012 dama waroon nekk candidat fomm ko ndax Sall bii nag moom kenn mënu maa teree doon candidat yéen kaayib dee média bi naan man du nee woon naa leen Benno Bokk Yaakaar daanaka sabar gu tas la Abdoulaye Daouda Diallo le peuple ma nga naan mooy candidat bi dalal xel yi l'info yéen kaay naan man jaxasoo na daal Sall mbir yi daal jaxasoo na ci seen biir ba ci seen ndaje yi ci boppam ay jaxasoo nga fay daal di gis l'info naan man Aly Ngouille Ndiaye de nee na parewul sax ngir teggi candidature am bii wax na ko leeral na ko te di xam leen na képp koo xam ni mënoo dajale am mbooloo boole waa Benno bok Yaakaar ñu doon benn yow mii boo taxawee ni bëgg nga doon candidat Benno Bokk Yaakaar da ngay naxe ca réunion ba nga xam ne amoon na ca Yoff ña nga xam ni ñoo ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr le nañ ni moom Diouf Sarr daal mooy candidat bi gën l'info naan man ca jiite ab délégation boo xam ni maar day taali moom Aly Mané ci boppam ànd akub délégation bu parti socialiste naan ñoom ña ngay jàppale Amadou Ba tey ak ëllëg fas yéene jël ndam li premier tour Jean Paul Diaz naan ko président Macky Sall wara a tabb sunu arrangé wul mani la ñu teggi ko fi dem jàppale keneen tribune naan man xanaa déggoo man la mbir yaa jaxasoo le point yéene kaay naan man Amadou Ba ma nga woon ca Kaffrine ñu daal di koy dalal dalal ju am solo tribune yéene kaay naan ko déet Kaffrine dañoo daal di dëddu Amadou Ba daal woo seeni militant ne leen génn leen dëkk ba diggante ñoo Nioro Koungheul ak yeneenu gox-goxaan ma ni la daal wane ni ñoom Abdoulaye Daouda Diallo la ñu daal di àndal turbine nan man candidature ba ca Benno Bokk Yaakaar jaxasoo na wala direct ci news naan man sayal ga ñu sayal Pastef dee gën a jaxasoo bugaan gay ci biir yéene kaay bi naan patriote yi kay nañu amu feem rek dem daal di taxawal seenu mouvement daar daar ngir nag ñu mën a bokk ci élection présidentielle yi nga xam ne dëgmal nañ ko l'exclusive yéene kaay naan man bugaan gay danee ngay wax ay feem waa Pastef ngir nag ñu mën a bokk ci le présidentielles manga naan leen taxawal leen seenu mouvement dippee ko Pastef ngeen soobu nag ci élection présidentielle yi ngir mën fi jële système bi fi nekk bugaan naan ba ma mujjee waxtaan ak Ousmane Sonko santir naa mbëggeel gi nga xam ne njiital Pastef am na ko ci réewum Sénégal gaye nga naan leen bu leen xaddi mukk nekk leen ci biir xeex bi te xeex bi mooy bokk ci élection présidentielle bi ndax nag Benno Bokk Yaakaar ci boppam ci tas tasar la jëm maa ko wax bugaan gay dani ci le mandat yéene kaay naan ndaw yi ci boppam ma ne bañ leen lànk leen mag ñu mel ni ñaari kaay fas yéene jiite ñu ëllëg xam nga ndaw yi nga xam ne ñaar fukkat jàpp ñaar fukk ak ñeent la ñu am ñoom xamuñu Karim Meïssa Wade xamuñu Khalifa Ababacar Sall ndaw yooyee nag nga bëgg leen jañax ñooñee ni leen nañ leen jiite foo ko teg waa grand place naan maan moom Bougane Gueye Dany day ma ngay xeexati système ba daanaka mook Ousmane Sonko lii la ñu dëkkee mooy xeex sistem bi ñaar ñi nga xam ne fii ci réewum Sénégal booy war ñuy xeex système bi day mënoo leen ci gi ñoom ñaara Bougane ak Sonko moom waa grand place naan maan njiital gëm sa bopp ma ngay xamle ni moom président Macky Sall ma ngi koy jéemal ay pexe nag mu ne ci parrainage yi ci boppam la bëgg a suuxalee njiital gëm sa bopp moom Bougane Gueye Dany di woo ndaw yi ak ku ñu mën a woteelit ñu xool ña nga xam ne ñooy xeex système bi ñu jàppale leen ndax loo ci mënti déggil système bi moom arrangé wu leen moom njiital des médias xam le ni amul lenn loo xam ne guuxal na ko président Macky Sall waaye kombaam ci boppam mooy xeex système boo xam ne daanaka Sénégal fi mu toll ci ndóol ak ñaawteef Sénégal fi mu toll ci deltu ginnaaw Sénégal fi mu toll ci ndaw yi amatunu yaakaar bay jël géej gi ñu ko teg tax nag mu ne damay taxawal loo xam système bi xeexit ña xam ne ay milliardaire lan te kenn defaru leen ku dul système boo xam ne ña ñàkk dañuy gën di ñàkk ña am di gën di am di rof ci seen poche te loolee ngir mu am ci réew mi faw ay coppite daal di am rawatina ci langu politique gi ci réewum senegal coow li coow li mooy système bi moom nañu abal 24 heures yéen kaay naan maan bi le présidentiel day moo nar a metti wala ndax Benno Bokk Yaakaar fi mu ne ña tamante li fi jële woon Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade saa si tembe moo roofu biir Benno Bokk Yaakaar jubootuñu te loolee mën leen yàqal lu bari yeewi askan wi nekk ñoo xam ne ñoo ko doon incarné daanaka moom nguur gi daal di leen di tëñ-tëñal ba fi ne daal di leen di tàbbal géej te boo moytuwul nag bu buñ taxawalee coalition boo xam ne diggante Serigne Moustapha Sy ak Ousmane Sonko lay doon mbir mi nar naa metti wala di Quotidien naan nañ wax ci coowal Ousmane Sonko li nag ndax saa si tembe mi ngi ci grève de la faim moo ki ñoñam boo xam ne metti na yàgg na Sénégal nañu wax ci xiifal gi nga xam ne politiciens i nekk ci kaso bi saa si tembe ñi ngi ci réew mi Quotidien naan man nañu waxit ci ñàkkub soble gi nga xam ne mi ngi ci réewum Sénégal gouvernement gu Sénégal nag di wax kàddu yoo xam ni waroon na lool moom ministre bi nga xam ne moom lañ dénk njaay ak jënd Abdou Karim Fofana mook Aly Ngouille Ndiaye mi ñu dénk mbay mi seeni wax mani la daal dinay waroo na yàlla ak yaali léefa yéene kaay jox kàddu bugaan géy dani mu naan soble bi lépp lu nu ci wax du dëgg ndax nag senegal bu ñu tolloo fii cuuneeg sunuy nji dong ñoo ko waral ndax mënoon nañu taxawal ay unité de stockage yoo xam ne mën naa tax ba lépp loo xam ne bay nañu ko ci at wi ci soble mënees na koo denc ci anam woo xam ne du yàqute sénégalais yi na ko jëfandikoo président Macky ngi ci guddi gu bër setagul ña nga xam ne ñoom la ñu wooye ay pêcheurs artisanaux day fas nañu yéen génn ci mbedd mi daal di naqarlu jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ci réewum Sénégal waa UNAPAS naan léegi sénégalais am jafe-jafe jën ndax pas ci boppam moo fas yéen a génn ci mbedd mi wan président Macky Sall nag ni ko jafe-jafe la napp gi am ci réewum senegal Makumba Jéey ne suñu waax yëpp daanaka jaay nañ ko fi mu toll nii jafe-jafe nappkat yi am ci réewum Sénégal ngir daal di napp tax na nag ba màngaan gi mel ni tulleeg màlle ci réew mi nappkat yi fépp fu ñu jaay milliards ñu ni leen fii waa Europe moom makumba ne tax ba xale yi nag màngaan gi la ñu jël te màngaan googee mooy tax seen bakkan di ca des waa UNAPAS fi mu ne nag génn ca mbedd mi daal di yuuxu wàllu lii moo ñu dese naqar luy président Macky Sall la nga xam ne teg nañu ko rawatina nag ci napp goo xam ne jaay nañu suñu wax yi ba maar day taali libération yéeni kaay naan kon sénégalais yaa ngi dem de lu toll ci ñetti junni ciy doomu réewum Sénégal daal dinañuy teer ca Dakhla dooree avril bii ñu génn ak tey ñaari téeméer juróom-ñaar fukk ak benn daal dinañ leen andi ci réew mi ci week semaine bi yeneen ñaar daal di teer mbuur ak faas Boy juróom benn ci ñoo xam ne seen bakkan dafa des ca dax la andi nañ leen ci réew mi juróom ñeent ñu ngi leen di waajal andi leen baa bu seen consul bu senegal ca dax la ne am na ci néew yoo xam ne ëpp nañu at ci morgue yu Maroc yi ba nii kenn mënta xam fan la ñu bàyyeekoo ci senegal ngir mën leen yóbbu foofee denc leen baa baabu naan màngaan gaa ngi faat teewul xale yaa ngi jóg bus bu yàlla sàkk di dem mbëkki ak lu mën a abonné leen su ne ay xibaar yu wér bitim réew